xanaa di rafetlu li nga xam ne sunu réew waneeti na xar kanam bu rafet ci wàllu démocratie ndax euh, def nañ campagne boo xam ne gannaaw quelques jafe-jafe yi am fenn rek wax dëgg yàlla ci réew mi yëpp nit ñi dem nañ def seen campagne ku nekk wone programme am ñu waxtaan programme par programme toll nag foo xam ne tey nag mooy bésu wot wote bi sénégalais yi jóg nañu démb ba léegi ñu ngi ci yoon yi ñiy tukki pour voter ji dem voter ji tey ñu xëy fii en tout cas ci école japonaise Nord Foire seetlu nañ fii fi ma voté mobilisation bu exceptionnelle nit ñi jóg pour dem def li nga xam ne mooy seen devoir citoyen lii mooy Sénégal su ko defee suñu wotee suba <laughs> ñëpp xam nañ ne incha allahu bi dañuy xëy delluwaat ci liggéey bi rek doonaat benn xëy doonaat benn Sénégal loolu mooy xar kanamu Sénégal bi nga xam ne moom la ñëpp nawe suñu réew lu gën lu gën a am njëriñ suñu suñu suñu suñu trophée suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu amin suñu am-am bi ëpp solo mooy mooy loolu noonu nga xam ne mun nañ dem vote ji ci jàmm xëy ku nekk dellu sa liggéey noonu la nar a demee incha allah ñi gañe gañe ñi nga xam ne sénégalais yi tànnuñ leen ñu xam ne sénégalais yi tànnuñ leen ndax ñoom rek ay tànn nag keneen tànnul mbañ gàcce gi ñoom rek a fay dugg euh, ñoom ñooy génn euh, joxe seen seen tànneef. fa ñuy defee tànneef bi journaliste yaa nga fa magistrat yaa nga fa ñëpp nga fa donc kenn mënul na natable li nga xam ne mooy résultat yi nar a génn ngoon ci ci ci ci ci ci yoote bi nga xam ne ci lañ jublu donc ñu di ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi fii ci yoof ak ci Sénégal yëpp loolu daal moo doon moo doon moo doon kàddu yi